waaye nuyoo bi ak siyaar bi it ñu ngi ci jiital sëñ Muntaqa Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Bachir sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba yéene ji moom ci liggéeyal Cheikh du bàmba mu def ko ci nu mu gën a mate te ànd ko bi yëpp. waaye noonu lañ koy ñaanale Serigne Cheikh Jëmb Fall mi nga xam ni moo toog toogee maam Cheikh Ibrahima sunu borom yàggal ko fi te wéral ko. ba yéene ji moom ci liggéeyal maam Cheikh Ibrahima mu def ko ci na mu gën a matee tàndu ko mboolem taalu bi yëpp waaye noonu la ñu koy ñaanalee Serigne Abbas Mbacke mi nga xam ni moo toog toogee boroom daaral moxti sun boroom yàggal ko fi te wéral ko ba yéene ji moo am ci liggéeyal Cheikh Ibrahima Faty mu def ko ci na mu gën a matee tàndu ko mboolem taalu bi yëpp waaye noonu la koy ñaanalee mbooleem jullit ñi. sunu borom wacc ci réew mi jàmm ak xéewal ñu ngi nuyu bu baax suñu directeur Serigne Mbacke Dieng di ko ñaanal sunu borom subhanahu wa taala barab bi saa borom dafi tawfeex yu yaatu li nga xam ne moo nekk Mourides Info itam suñu borom yóbbu ko ca gën gaa màggi ay kawe nga xam ne daal dana ràññi ko ci àddina bi yépp ba àddina bépp di ko dégg fenn fu rek ak saa su ne ndax amal na réew mi njariñ kon ñoo ngi ñaan yàlla na yàlla saxal jataay bi sunu borom bëtt ay xéewlu yaatu ci sunu kaw maa ngi siyaar bu baax it sama doomu nday ji sama rak suñ Mor Mbay ñoo ngi koy siyaar bu baax ginnaaw bu loolu jàllee nag ki nekk ci micro bi seen mbokk seen xarit sëriñ Xaadim bay Muxtaar fas yéene waxtaane rek benn tomb te tomb bi ñu ngi jëme ci waxtaane ci weeru koor ndax mel na ni jamono ji ñu tollu tembe moom actualité bi mooy koor gi kon ba tax na foofu rek la ñuy jooyal suñu waxtaan jëme ko fa war nag mu nekk loo xam ni dafa am solo lool tam am njariñ lool lool lool ceeb jullit ndax xam nga ni sunu borom subhaanahu wa taala mu ngi ci soññ bu baax ngir warlu goo xam ne warlu ko ci noonu ndax xam nga ni sunu borom subhaanahu wa taala mi ngi wax naan yaa ayyuhal lazina amanu kutiba alaykumus siyaamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun sunu borom subhaanahu wa laa wax na ni warlu naa ci yéen koor warlu naa ci yéen koor nekk nga xam ni noonu laa ko warlooloon ci ñi leen fi jiitu woon ngir lan ngir ngeen ragal yàlla kon koor mi ngi noonu bu ko defee nag nga xam ni koor dafa am diggante boo xam ni ca lay amee ak diggante bu du fa amee koor dëgg-dëgg am na yeneen koor yi ngàtt nga yoo xam ne lu jiitu weeru koor dañ koy koor waaye weer wi nga xam ne moo gën ci weer te mooy weeru koor mooy weer wi ñu taxaw tey ji waaye nag koor googi mu ngi waree ci ñu gis weer wi ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci aw baraxlu gis gi nag kenn ku ko gis bu wér te wéete ko bu mboole mi wooree danga woor bu ñu wóorutit yow ma ko gis te wéete ko danga nga woor waaw maanaam bu fekkee ne danga ko gis te mu wér la bu mboole mi wooree danga nga woor waaye bu mboole mi wóorutit yow danga nga woor boo wóorul ngir bëgg a ànd nit ñi nag kon bu koor gi wee da nga ko fay tayit da nga kaafaara da nga fay bis ba te kaafaara dana ca war bu fekkee ci weeru koor la nga xam ni dafa nekk ci weeru koor nga xam dañoo woor weeru koor ba dem am ca ñaar fukki fi ak juróom-ñeent ñu seenu weer wi melnum yow dong nga gis weer wi kon bu boobaa do fas yene koor waaye do saña feñal dogga dom yene kor koor do doo sañ dogga ngir yow dong yaa ko gis ci weeru kori wi kon bu boobaa do yene koor waaye do feñal dogga ndax boo ko defee rek yoon dana la yar moo tax dañu bëgg maandu kon bu boobaa rek da ngay am yene baña a woor waaye ko feeñ do ko saña feñal mi nag bala ñu wala ñu wari war nañu gis ñaar ñu ñëpp xam seenu maandu ñu ni gis nañu ko wala mbooloo moo xam ne mënuñoo maas ci aw fen ñu ni gis nañu ko kon bu dee koor war nañoo woor bu dee wori war nañoo wari bu dee tabaski war nañoo tabaski waaye boroom xam-xamu biddiw yi nit ki boroom arminaat yi ñoom deesul déglu seen wax ci weer bu comme réew gisul te meneen réew gis ko moo xam ne sore nañu kon waa réew ma ko gisul duñu ñu saña woor ca gis ga ko réew ma ca des gis réew mu ne dafa war a yem ci gisu boppam bu ñu soree mas weer woo xam ni dañu ko gisul ca Ijaas te ñu wax ni gis nañu ko ci Yaman ñu wax ko Seydina Omar mu wax ni bokkunu benn benn gox bokkunu ko bu fekkee ne dañu ko seenu ci séeru bu njëkk ci baraxlu te gisuñu ko ñu jekki ba xëy suba jekki ba yoor yor ba dang ñu xam bu wér ni kat weer wi ndekete yoo feeñoon na biig kon bu boobaa dañuy jàppale des ci bis ba àggale ko te du tee fay bis booba bu fekkee itam dañ ko xool ci weeru koor nga xam dañoo nekk ci weeru koor wi di ko woor di ko woor ba yàlla dogal ñu am ca ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ñu séenu ko suñ borom dogal gisuñu gisuñu seenu boobee gisuñu weer wa bu ñu xëyee yendoo koor ñu dem bay 10 heures 11 heures ca bëccëg yàlla dogal ñu xamoon ni bu wérkat weeroo feeñ na kon boo boobaa mën nañoo dog seen koor te julli ji korite waaye nag bu tisbaar xësi jot moom faat na te deesu ko fay koor nag moo di yéene wax sam xel ni fas na ma yéene woor faratay weer wi ngir yàlla ak bàyyi lekk ak naan ak booloo jëkk fajar ba jant so yooye nag ku ci def lenn te tëyu war na àggale kooram te dana fay bis booba bu yàlla dogalee mu def ci yu yi benn te tey ko nag dana yeggale koor ga te kaafara dana ko war maanaam kafara dana ko def kafaara bu ñu ko waxee mooy dangay jox juróom benn fukki miskin ku ci ne genn wala àndaari dugub wala nga yu woor ñaari weer yoo xam ni dafay toftaloo nga xam ni doo ci jénn benn bis nga xam ni boo wooroon tey jii ñaar fukki ak juróom-ñett wala nga wor la upp ci yaari wer yi nga xam nga wor wer ak ak ñaar fukki fane juroom ñet dem ba nga xam ne bëgg jéxal bu bu geet bo ci jëlee ben bis ngay doxaat da ngay delluwaat tambalat koor ga fa tambalé woon kon bu boba nona lay démé mi ngi waré nak mom koor ci nit ki mu ànd xelam ndax koor borom xel mu manqué ndax day def lako yak kon koku suñ borom nit ki sax eh, nit ki sax bu xel mi xësee manki gep jaamu yalla gu meuna don rek suñ borom da koy jegal gis nga julli mo gën for ci xeeti jaamu yi waye sa bo xamni nit ki xel mi manki na suñ borom da koy daldi jegal lola kon mi ngi ware ci nit ki ànd akum xelam tamu wer tay ko tongu jëf tamu baña tamu baña nek ci dox buñu ñuy sañ buñu julli bu ko defee nag koor ci boppam bu fekkee ne ki nga xam ni dafa bëgg a woor dafa wéradi nga xam ne dafa feebar feebar boo xam ni yaramam attanu ko kooku sañ naa dog bu wéree mu fay ko waaye dana jox genn dana joxe genn wàllu àndaari dugub wala genn wàllu àndaar ca dundub réew ma mu dëkk euh, la ëpp ca réew ma muy dundee mu joxe ca loola genn wàllu àndaar waaye même bu fekkee sun réew mi la nag moom nga xam ne ñun daanaka euh, lu mel ni ceeb ak xeet yooyu dugub ak suun ak bësig yu mel noonu kon it mën na koo joxe ca loola ki nga xam ni même day nàmpal waaye dafa ragal lori doom ji nga xam ni bu wooree doom ji du am loo xam ne dana ko mën a kon bu boobaa moom tam mën naa bañ a woor waaye euh, da koy fay te dana joxe genn wàllu àndaar niki ki ëmb bu ragale bu ragalee lori ëmb ba mën naa dog même ki nga xam ne dafa màgget ba attunatul koor sañ na koo bàyyi tey joxe genn wàllu àndaar dugub bis bu nekk yéene koor nag sañees na koo defe benn yoon ca guddi gu jëkk ga nga xam ni bu weeru feeñee rek da ngay wax ni man dey fas na maa yéene woor weeru koor wi ba weeru koor wi jeex tàkk loolu sañ ko ko wa yéene walla weer wépp wa ilaa bu la neexee mën nga ko beral bis bu ne yéene boppam heure soo dogee rek nga ni man day ah, fas na maa yéene woor suba nga xam ne nga koy beral yéene boppam loola ci neex yaar yooyu mën nga ko def waaye nag mel na ni li gën a jàpp ni mooy bañ koo bañ ko bañ koo nekk di ko sàkkal bis bu ne eh, yéen sa yéenee boppam bis bu ne nga di ko bereel yéenee boppam eh, bu fekkee daal li gën daal mooy bu weeru feeñee rek nga yéenee woor wi woor wépp loola moo la ci gën a noppal moom koor nag am ay farata am ay sunna farata yi bokk na ca mooy nga gaaw a dog gannaaw bu jënd bi sooyee waaye nag waxuñu itam nag ngay wane ni man kat damaa ñeme koor di ko dangal te lislaam dangalu ko damaa ñeme koor di wane loolu ba tax yàlla dogal fa nga war a na doge ca sunna doge woo ca doge woo foofu loolu dañ koy bañ ñaareel bi mooy nga fekk lépp nga fegu ci lépp loo xam ni day waral sa koor dog waaw lépp loo xam day waral koor dog rek nga fekk ca loola di ko moytuñu ko bu baax a baax waaw moo xam looy laal la wala looy wax la wala looy def la wala looy mus la ndax caabi nii léeg-léeg dégg nga ñuy xaw a juum ngir bëgg seen bakkan la njiitil ba tax mus dara da leen di yomb ci bëccëg beeg yooyu waaye ñu góorgóorlu la ba yooyee bañ leen a dal daal am na ay sunna nag moom koor sunna yi bokk na ca maanaam maanaam yéex a ma ma maanaam yéex a xëdd yéex xëdd kooku ci sunna yi la bokk. mboo sorante la yu mel noonu loolu yëpp dañuy tere maanaam dafa nekk loo xam ne moom tam ci sunna yi la bokk bu ko defee koor nekk loo xamante ni lu am solo la ndax xam nga ni yërmaande ji nga xam ne sunu borom subhaanahu wa taala def na ko ci nga xam ni boo wooree sunu borom dana la dottil xéewal yu yaatu yu bare bare bare bare ndax xam nga ni koor ci boppam dafa nekk loo xam ni lu am solo la ndax boo xoolee anawmu siyaamu nga xam ni woo wooru ki nga xam ne day nelaw ki nga xam ne day nelaw nee na kooku kooram kooku nee na jaamu yàlla la anawmu saayimi nee na kooku nelaw yi muy nelaw ak jaamu yàlla la ci moom nee na wa sumtuhoo noppeem nga muy noppi moom mi nga xam ni mooy aji woor ji noppi gi muy noppi ngir fekku ci wax loo xam ne du noona nee na noppeem googee tas bii xun nee na ak tudd yàlla la la ko suñu borom di suppil wa amaluhu jëfam yi nga xam ne moo ngi koy jëf nee na bu boobaa jëfam yooyee mu mu daa afun lu ñuy ful lay doon dañ ko koy fulal waaye bu ñaanee suñ borom day nangu ñaanam waaye bu tuubee moom aji woor ji nga xam ni bu tuubee suñ borom da koy jégal li nga xamante ni moo doonoon ay bakkaaram kon bu fekkee ne suñ borom subhaanahu wa taala daf cee def yërmande mu bëggoon jullit ñi nga xam ni yàlla dogal na ah lépp loo xam ne yaa ngi ko ci jëf suñ borom da koy ful ñi nga xam ne tane nañu seen moroom seen seen moroomi seen moroomi jullit ñu leen ci jàppale leen ci dimbali ndax sëñ bi dëkk ak sa mbokkum jullit mu wóor la ni kii bu xëyee bu añee reer dana ko jafe lool nga yeewoo ci sa bitaas tiim ko ca kaw doo bàyyi xel ndax sa kii la féetal kii kii nga dana day ab jullit la te yàlla dogal na xëy na yoruma loo xam ne eh, te yorut loo xam ne mën na ko dimbali ko nga fekk ko fa jàppale ko ca loolee lola yaakaar naa ni képp ko def ci yor ko suñu borom moo lay fayal boppam bu ko defee nag nga góorgóorlu ci dimbale bu fekkee da nga daa joxe nga yokk ko bu fekkee da nga jàng alxuraan nga yokk ko bu fekkee da nga sikar nga yokk ko lépp loo xam ne ko daan def ci lu baax nga di ko yokk ndax Cheikh Modou Bamba moom weeru koor ci boppam da ko daan da ko fonkoon nga xamni lepp lu mu ci daan def rek mom Cheikh Bamba bu weeru koor bi ñëwé da cey def ba def ci lo xamni da lay woor ni ki uh, fonk gum fonk weer woor woor weeru koor bi motax mu def loola nga xamni seigne touba fonk na weeru koor ba daw ci mukk ko xamni woorul xam sun ñun sun jamono ji léegi man ma ngi baye xel buñ masaana woor ba ngon bu ñuy yónni genn gone mag danaan tonni ni kookat bu ko yónni ndax dafa woor yónnil diw ndax moo wóorut sëñ tuubaa nee na weeru koor bu yàlla dogalee mu nekk ak ay nit mbooloo mbooloo ma ko ci wóorul sëñ Touba amul siqutu yow lenn du la yónni du la liggéey dara dalay seetaan rek ngir lan fonk goo xam ne fonk na ko weeru koor kon weeru koor mi ngi noonu bu ko defee weer wi fukki fan yi nga xam ne moo nekk ci njëlbeen gi comme ni ñu ko tàmbalee yërmande la fukki fan yi nga xam moo topp ci euh, di ñaar fukki fan ñaar fukki fan ya kooku kooku maanaam euh, kooku maanaam njëggal la fukki fan yi ci mujj goreel ci sawara la nga xam ni ci tënk-tënk daal mooy saa boo weere wooru koor sellal ko na ko war a defe nga defe ko noona tànd caaku ragal yàlla sunu boroom daal ci gàttal mooy dana la yërëm dana la jégal say bakkaar dana la tabal aljanna ndax a kilifa ku baax kii gii di sëriñ Moussa wax na ci li mu noonu ci wàllu koor nee na suñ boroom subhaanahu wa taala bind na mel ne malayka moo xam ni ma nga aras malayka ma day woor guddeeg bëccëg mono téré wor woor guddeeg ngir korom goge ndé kon non bëccëg la lañuy def sun kor gi néna mi ngi fek junni bi junni malak yuy jéggulul woy ye ya fi unak bis buñu humé mu dal dem fa yalla niko nga jéggal gaay wor ngir yalla bor ne ko jéggal naa ña wor ngir yalla ba jéggalaale ñu humul ngir yalla moy gaay leen di jox ñam yu teey ak ndox yu sel ngir sàkku yoolu yalla bur yalla dal di tampé yónnee rilwaan nu bii naa aljana tey ngir ramadaan ñu daldi ubbi wunti janati naim tëj bunti jahanama keroog ba yëpp giim mboolem ña faat woon ca doomu aadama kenn du tële mbugal ci xeetu jaanama nee na keroog bi sukkunte kumte la yàlla jégal téeméer junni kooro leen may njëgal su ñaari fan mu def ko ñaari téeméer ñetti fan mu def ko ñetti téeméer ñeenti fan mu ko ñeenti téeméer noonu la ñu koy fulee ba weeru koor xëy yeneenti aljuma ya ñu tàmpe seen pay ku doge tàndarma bu lew ci weeru koor ñu ful salaka yi ñeenti téeméer su laylatul xadar ñëwee mu ful ko junni bi junni mëlku rek mëlku ba bis bu ñu waree mu jégal ñépp ku bokk xeetu Moustapha te sopp kon lii mooy li nga xam ne waxoon naa ni danaa ko feeñal sama yéene ñu waxtaane ko ci koor gi ndax dañuy wax ni wax la mu mugate mu gàtte ko tamé ko solo moko gën ndax dañuy wax ni khairul kalam ma khala wa dal kon koor ga ngok ku ron yokal, koron yokal ku ron def jang khasaid yokal, ko xamni da nga don def ay salatu ala nabi yokal ku da yekati sa alal diko joxe ngir jëmi suñu borom yokal ndax suñu borom lepp lo xamanteni defal nga ko dana la yok dana la defal lu ko gën wa ma anfaqtum min sayin fa huwa fa huwa yuxlifu nee lépp loo xam ne daal jaam bi mi ko yëkkati di ko def ci yoonu yàlla man sunu borom danaa ko wuutalal lu gën loolee kon mbokki jullit yi bokki taalib yi seen mbokk seen xarit sëriñ Xaadim Mbay Muxtaar moo nekkoon ci micro gi ñoo ngi sant waa Mourides info bu baax a baax ñoo ngi leen di sant ndax seenub liggéey yaatu na te it macha allah yéen lu ngeen mën a jot jotale def ci lu baax yéen a ngi koy def ba dindi bépp mën cee jot kon seen taxawaay boobu ngeen taxaw yàlla na yàlla na yàgg ni ma ko waxoon maa ngi sant sëñ Mor Seck di sant bokki taalib yëpp di sant mboolem ñi nga xam ne ñooy liggéey fii ci Mourides Info maa ngi jégalu nag lépp loo xam daal jub na ci waxtaan wi nañu xam ne yàlla la neex lépp lu ci dëngit dañuy jàpp ne ci man mii doon wax rek la waaye la ma ci jublu woon mooy wax lu baax ak yee nit ñi ak digal nit ñi lu baax rek loolu rek laa ci woon seen mbokk seen xarit Serigne Khadim Mbaye Moukhtar wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu